ak ay partenaire am Salim Dieda World Trading Clinique Marie Al Madina International Travel ñoo leen may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. salaamaaleykum euh, auditeurs Sen Info tey euh, toujours dans le cadre euh, des mercredis du docteur Konaté tey dinañu wax waxu tension. suñu waxee tension dañuy euh, euh, jàpp ne mooy tension bi nga xam ne moom mooy euh, jóg donc feebar boo xam ne feebar boo xam ne deret bi nga xam ne dafa nekk ci sidit yi doole bi dafay xaw a yokku donc su yokkee ba ëpp li nga xam ne moom la ñuy wax euh, moom mooy euh, cent quarante euh, quatre vingt dix de mercure donc am nañu benn lu ñuy wax benn HCA donc moom mooy augmentation donc des chiffres tensionnels mooy tension bu jóg bi comme ni mu leen ko waxee bu demee nag ba xaw a jéggi dayoo moom mooy tension bi nga xam ne dafa graaw boobu. tension bi mun na dem ba cent quatre-vingt cent vingt cent quatre-vingt cent vingt cent quatre-vingt cent vingt donc euh, euh, chiffres yi mun na dem euh, comme ni leen ko waxee cent quatre-vingt cent vingt millimètres de mercure te bu boobaa mun na indi ay jéyee donc si nga ci ci ci ci si yaram bi tension naka lay euh, manifesté woo naka lay wone wu euh, soo leen toogee ba si yàgg mu am loo xam ne dangeen di ko yëg genre euh, bopp bi di metti nopp yi di riir bët yi di lëmlëm mu mel ni da ngeen am ay weñ yuy naaw seen seen kanam ngeen miir. seen xol di tëf-tëf yi yooyu euh, mun nañu wax ce sont les signes mineurs loolu la ñuy mineur euh, si suñu jargon dañ koy woowee euh, signe de Dieu la foi donc loolu soo leen ko yégee ci seen yaram rek mun na nekk tension donc bu jóg bu fekkee nag dafa jóg xawa a jéggi dayoo bu boobaa euh, yeneen genre signe bi ñuy wax signe majeur donc mun na euh, mun na feeñ hmm? moom mooy euh, tension bi nga xam ne ëpp na cent quatre-vingt cent vingt millimètres de mercure bon mun nañu ko abrégé ne par exemple dix-huit douze di ngeen dégg ñuy wax dix-huit douze boobu beneen mesure la Euh, en ce moment là donc euh, foofu mën nañu am ce qu'on appelle des signes majeurs signes majeurs yi mën na nekk nit koo xam ne day jékki-jékki rek mu wëccu mu am ay euh, métitu bopp yu tar muy mel ni dafa jànnaxee wala mu mel nii dafay def crise wala mu jékki-jékki rek mu mel ni dafay apat léegi yooyu soo leen ko yéegee ci seen yaram rek xaman leen ne nekk ne euh, tension bi jóg na torop te soo leen si jógul bu bu gaaw mun na leen andil donc ay euh, complications euh, si complications yi mun nañu citer par exemple insuffisance rénale dinañ ci ñëw si. beneen émission mun na nekk euh, insuffisance cardiaque boobu tamit euh, euh, benn sujet la benn émission donc duñ si insister mun nañu am genre ay ay ay AVC ak yu yu yu mel noonu donc balaa loolu yëpp di leen ci fekk donc am na yenn yoo xam ne donc soo leen ko yëgee ci yaram bi rek te taamul leen ko yëg rek. donc euh, ñëw leen vers les professionnels ñëw seet leen seet seen yaram bu baax jël seen tension jox leen ay conseils wax leen fan ngeen war teg seen tànk pour ngeen euh, mun a euh, mucc ci yenn yi donc loolu moom moo ñuy yóbbu ñu wax waxu traitement bi pour traitement bi traitement tension Euh, traitement bu large la am na côté boo xam ne ay euh, garab nañuy joxe euh, ci garab yi mën nañu citer par exemple ay diurétique du ma dugg ci détails yi dama bëgg rek ngeen xam ko mën nañu joxe li ñuy wax ay inhibiteur de l'enzyme de conversion mun nañu joxe ay inhibiteur calcique mën nañu joxe donc ay bêta bloquant donc euh, loolu yëpp ay xeetu garab la pour euh, wàññi tension bi bu fekkee dafa jéggi dayoo wala bu fekkee dafa commencé jóg ci ci yaram bi euh, gannaaw joxe garab yi am na benn pàcc boo xam ne dafa am solo ci faj bi loolu moom mooy activité physique bi mooy yëngal yaram bi yëngal yaram bi. dafa am solo parce que dafay leen di permettre non seulement ah ngeen euh, protéger seen euh, yenn cër yi notamment xol bi ak res yi mais dina leen permettre tamit ngeen def lu ñuy wax évasion ngeen may oxygène cerveau bi te loolu daf leen di jox benn donc sensation de bien-être donc si activité physique bi kenn waxu leen ngeen daw comme benn athlète wala comme benn footballeur wala euh, benn sportif de haut niveau li leen di laaj rek mooy ngeen def par exemple un peu de marche benn marche boo xam ne mooy ngeen dox waaxu waaxu boo xam ne dina ñaqaloo soo leen ko defee euh, pendant trente minutes par jour vingt à trente minutes par bu fekkee au début dafa xaw a jafe ci yéen ngeen démarrer ay quinze minutes donc dem vingt minutes après soo leen demee ba xam ne que ne seen yaram attan na ko ngeen dem trente minutes euh, par jour ngeen def ko ci biir semaine bi au moins cinq fois dans la semaine. bu boobaa loolu dina leen dimbali torop pour euh, euh, seen wér-gi-yaram euh, beneen pàcc si traitement bi bu fekkee da ngeen di tux wala da ngeen di naan loolu tamit affaire yu cigarette bi wala naan bi dinañ ko wax ci si beneen émission affaire yu cigarette bi surtout donc bu fekkee da ngeen di tux wala da ngeen di naan Euh, soo leen euh, ko mënul bàyyi ngeen wàññikoo bu baax a baax ngeen wàññi bu baax a baax li nga xam ne tamit euh, moom mooy stress stress moom fu mel ni Sénégal moom Sénégal dafa neex a stressé parce que dëkk góorgóorlu la daal dëkk góorgóorlu la da ngay xëy pour dem lijjante <laughs> li ngeen di añee walla li ngeen di reere Euh, wóoru la ndax euh, di nga si jot wala doo si jot donc euh, loolu rek stress la donc soo si boolee loolu nag suñu soxna yi yeewu nag xoj la teg la benn pression boo xam ne moom bu xaw a jéggi dayoo sàndiwuma leen xeer nag ah suñu soxna yaa ah, sàndiwuma leen xeer mais loolu la ñuy dund ñun ñëpp dañ koy dund ah donc euh, bu la tegee xaw a xoj moom euh, suba teel bi euh, nga génn si kër gi ak benn mer wala xaw jaaxle noonu donc loolu stress la bu boobaa tamit bu boobaa loolu tamit mun na contribuer donc tension bi di jóg après mu àndi la yeneen xeetu feebar donc stress bi bu fekkee gere nañ ko. ah dinañ ci ñëw ci donc yeneen émission wax naa lañ ko donc bu fekkee gérer nañu stress bi tamit dinañu di dimbali trop pour euh, ñu euh, pour ñu mun a ci faj bi daal pour régler problème mu donc euh, tension bi donc bu mujjee pour traitement bi moom mooy. régime hyposodé donc lépp loo xam ne moom mooy euh, xorom loo xam ne dafa saf xorom euh, dañ leen di ñaax dañ leen di ñaan ngeen euh, wàññi ko bu baax a baax si cin yi ah li nga xam ne tamit moom mooy bouillon yi bouillon yi du ma dugg si détails yi du ma wax ay tur yi tamit bu fekkee mun ngeen ko bàyyi suñu soxna yi Euh, def comme li maam doon def ngeen di def feuilles yi ah c'est naturel wala ngeen di def euh, tuuti persil tuuti laaj tuuti xorom euh, bu boobaa seen cin dina neex te bu boobaa dingeen sàmm tamit seen santé. di ngeen sàmm donc euh, seen santé donc tey loolu nañu amoon pour andi leen euh, ci wàll faj bi ci donc ci affaire tension tey dama koy choisir parce que ñu bëree dañ na ci interpellé di ma laaj waa kañ ngeen wax waxu tension kañ ngeen wax waxu tension donc euh, loolu moom li mu leen wax nii moom soo leen ko jëfee rek dina Euh, baax si yéen dina baax si yéen dina baax tamit pour euh, njaboot bi di remercier sama euh, technicien bi Abdel di remercier Ndofène pour seen collaboration donc si émission bi di leen jox dig daje la prochaine fois merci beaucoup